Euh, ponk bu njëkk bi laa lay booleel ak bu mujj bi mm. euh, mooy euh, diggante taxaw ak yeewi ak Pastef taxaw dàq nañ ko yeewi askan wi gannaaw la xew démb ca mairie bu dakaar loole ban lecture nga ci am buñ ciy jógee nga toftalal ñu si yeewi askan wi lan moo waral gaa yi bëgg jafandiku rek ci yeewi mu doon benn appareil boo xam ne ku nekk dafa jàpp ne mënta ñàkk. Mm. waaw <laughs> waaye comme li kilifa gi bu baax bi doon wax rek une fois nu mu maam une fois n'est pas coutume. Mm-hmm. di nuyu xumaan di nuyu soxna mami di nuyu sa invité bi monsieur. Kanté monsieur Kanté. di am sociologue allah di am mbégte bokk ak yenn plateau bi di nuyu internautes yi mooy ñu nekk ci réew ñu comme ñi nekk ci diaspora bi. Mm-hmm. waaw euh, exclusion wu taxawu biir coalition Yewwi Askan bi warul bett kenn. déjà man waxoon naa ko fii que taxawu génn na biir Yewwi je pense que émission. Mhm. bi ñu passé la taxaw moo auto exclure boppam ci Yewwi foog ñu ciy taxaw Yewwi dafa am charte yu ko tënkoon bokk na ci wax nañ ne bépp parti wala mouvement bu bokk ci coalition bi waroo am benn compromission individuelle ak le régime place loolu bu amee rek auto exclusion day taxaw. d'ailleurs dañ doon wax sax ni loolu gars yi dañ ko def pour tënk ñi nga xam ne dañuy wax ni dañuy dem di waxtaani guddi gi bëccëg bi ñu nekk ay opposants que heure bu ñu amee info ni yow yaa ngi am ay compromission ak le régime rek génn nga loolu xalifa bokk na ci ñi ko bind. kon ñoom ñoo dàq seen bopp. bi bi taxaw ne damay dem ci dialogue bi ci bañeeru taxaw rek génn na biir yeewi li ci des maslaa la ak jéem a rafetal ak xool ndax mun nañ rattraper. mais taxaw moo génne boppam biir yeewi mais taxaw buggut a bay yeewi comme ni ko xumaan hmm. waxee yeewi dafa am lu muy incarner lu bëri mais balaay boobu <laughs> danaa ci ñëw après bi taxaw génnee biir yeewi parce que moom jàpp na ni intérêt nekkatul doxin bi yeewi di doxee hmm. parce que taxaw gis na ni xëy na pour projet de loi bi jàll assemblée problème la rapport de force ci terrain bi n'était plus favorable à Sonko et Pastef Barthélémy Diaz deuxième leader wu taxaw am na procès en appel sur l'affaire Ndiaga Diouf yaa ngi dégg affaire am bi mu amaatoon assemblée yaa ngi dégg itam li ko maire Aliou Ndoye junjoon ci affaire u dépensement maam dépense yi muy def ci mairie bi yooyu yëpp boo ko dajalee benn épée de Damoclès sa ci kaw Barthélémy da nga dégg ñu lay wax ne la depuis bi mu nekkee maire ba tey décaissement yi presque trésor da ko bloqué maanaam Barth jouirul ci prérogative en tant que maire de Dakar ni mu ko war a téewee xalifa Sall avenir am dafa incertain ba tey foog mu dem nangu jubóog mag Sall donc yooyu c'est de euh, taxaw c'est détaché mais lim dugg baaxul ni génnee baaxul am na nu mu doon génnee doon na gën a rafet mu préserver imager mais tey taxawu dafa dugg ci benn tourbillon boo xam ne baaxul ci moom non seulement taxaw lépp ci sénégalais jàppatuñ ni c'est des opposants du de Macky Sall mm-hmm. lépp ci sénégalais jàpp nañ ne taxawu dañoo war su ma ko mënee waxee noonu Pastef wala Yewwi de manière générale ñu bëri ci sénégalais jàpp nañ ne Khalifa Sall dafa jiital intérêt personnel am léegi nag keneen kiy toog di def lecture moom bu gën a xóot jàpp ni les gars du système rek ñoo dem daje pour préserver leur système. taxawu benn maanaam les partis traditionnels. boo xoolee ñooy te loolu moo commencé nekk ñoo nekk di former wu benn bloc contre ñi nga xam ne xëy na ànduñ ci façon de faire boobu. Euh, la politique parce que système façon de faire la rek mun nga bokk ci gouvernement bi yor ci ay poste mais gëmoo façon bi ñuy defee mhm. am na tey ku nekk biir benn koo xam ne il n'est pas du système mhm. donc da ngay gis ne benn bloc mooy formé wu contre beneen bloc te souvent décalage dage bi day am ñii ñoo gën a féete mag ñii ñoo gën a féete jeune beneen gis-gis la ñam beneen vision la ñam ci politique mhm. Sonko Bougane Gueye Dany euh, Mame booy Diao sax mun nga ko ci boole des fois Euh, Thierno Abdourahmane Diouf. docteur Abdourahmane Diouf docteur Abdourahmane Diouf Boubacar Camara et autres bëri nañ façon bi ñu gisee politique bokkut ak ñele façon bi ñu gisee politique et ñi jàpp nañ ne ñee danger lañ ci ñun léegi ci kaw loolu ban démarche la taxaw adopte xam nga taxaw su fekkee ni bi ngay uti mairie de Dakar par exemple Pastef dafa muyee la mayo wàcc terrain maanaam mun nga ne taxawu mairie de Dakar Pastef moo portoon combat presque. <laughs> mais ñaaw na démb li am te buñ ko jéem a justifié wu parité Barth bële passé décision génnoon na mu attaqué ko bañ na assemblée sax di deuxième institution parité amu fa. Mhm. mais pourquoi mu nangu ko léegi. et puis su doon def lu transparent pourquoi ñu jox ko taxawu vice président bi xam nga mënoon na ko jox beneen parti ci Yewwi. Mhm. mënoon nañu wone ne ah fii kat dëgg la problème de parité la moo tax mais vice président bi taxawu jëlu ko da ko jox beneen parti. mais vice président bi bu revenir à taxaw maire bi di taxaw mais li ñëpp. Euh, même gis dañoo jëlee ci Pastef yóbbu taxaw. waaw ñëpp même gis-gis bi la ñu am. Mhm. pourtant du Pastef ak taxaw rek yeneen parti lañ fa. et puis bu bureau bi tijjee ko ñi geddoon dugg muy Benno Seydou Gueye avait décliné ñëpp ko gis à la télé. Seydou Diouf. Seydou Gueye Seydou Gueye il avait décliné bi ñuy créé bureau bi. ouvertement dafa ñëw taxaw wax ak Barthe bi na ko ñoom décliné léegi ñoom buñ duggee diggante bi lan moo changé. mais nee nañu dañoo gedd ah. Pastef waaw waaw Pastef ne dañoo gedd parce que fi leen wàcce la moo tax mhm. ñu gedd et gis nañ li ci biir maanaam gis nañ ni lii faire semblant la mais du maanaam du jox boo yéene ki ngay jox malgré yow la ñu bàyyi ko fa léegi lan nga ciy jàpp mooy que taxawu moom tourné la doo tourné na la doo à la coalition Yewwi Askan Wi à l'opposition mhm. mais lan la koy apporter ak lan la koy yàqal gis nga taxawu fi mu jëm nii déjà tey lay commencer conférence presse Barthélémy Dias ci justifié wu la koy teg mhm. campagne u taxawu lépp ci justifié wu lay nekk mhm. maanaam posture bi ngeen ñuy xoolee ñun du ñu ay traître ñun trahir ñu opposition on est toujours des opposants mhm. loolu la taxaw nara a battre campagne mooy loolu plombé na campagne am te loolu perte temps lay doon moo tax ma gëm ni ñu waxee ni ñoom ñoo ëpp ñoo gën a xam maanaam stratégie politique ñeneen ñi du ma ci d'accord parce que façon bi nga koy defee ñee dañ la koy gën a rafetle tey taxaw yàq na campagne yow fi nit ñi di proposer naan bu ngeen ma indee ma def li yow yaa ngi fa nekk di justifier ni yow opposant nga mhm. mooy gars yi dañu am benn. and anduñu xam Macky Sall. voilà mooy gars yi dañu am benn dafay. Euh, xalifa fu mu wër li waa aar boo moytu. moo leen di daal fi mu toll nii xam nga lu muy justifier ne qu'il est toujours opposant mhm. xam nga bu ñu demee ba Dakar gii Barthélémy Dias war a wër di justifier ni opposant la ça pose problème. ok. merci Cheikh Ousmane mais dafa benn benn ponk professeur moo bëggoon ñu ñu ñëw ci balaa ñoo dugg ci deuxième point waxtaan mooy Pastef. waaw lan moo des Pastef su fekkente euh, bi ad adjoint adjoint mhm. nañ ko parti ba tas nañ ko seen leader mi ngi kasoo. Euh, ay am nañ poste mairie yoo xam ne moom lañ desee am na ay post député yoo xam ne desee nañ ko mënuñ ci dara mënatuñu mobiliser wu seen siège ñu ngi koy tëj lan moo des ci parti boobu ak ëllëgu parti boobu. bon c'est clair ah Moustapha je pense que moo tax man la. xam nga sànq j'ai utilisé un terme peut-être ça a un peu choqué mooy le terme de complot mën mhm. nañ ne c'est c'est un complot boo xamante ne tey jii am na ci euh, sur le dos du Pastef booy xool de façon générale te euh, puisque y a pas de réaction du peuple donc les gens vont tout faire pour en finir gis nga buñ dañ ko tëj automatiquement ñu dissoudre euh, ñu dissoudre parti bi mhm. et puis ils ont commencé euh, à, arrêter vraiment tout azimut hein mhm. c'est presque actuellement nombre de maires de responsables de de, de de de même de simples militants de partisans d'étudiants pastéfiens effectivement qui sont qui sont qui sont plus ou moins incarcérés donc je peux dire que ni bu fekkee bu ñu jàppee rythme bi vraiment d'ici peu il ne restera absolument rien de Pastef mhm. donc ça va parti euh, voilà un parti certainement ça va rester dans les annales euh, politiques du Sénégal mais euh, on peut dire que direction bi gars yi jël nii euh, bu fekkee amul réaction comme comme on dit nag en politique euh, pratiquement il faut jamais dire il faut jamais dire jamais peut-être mën na am benn compromis buy am diggante peut-être Ousmane Sonko et le gouvernement par la suite ce qui est très peu probable très peu probable Sonko tel que vraiment mu jot wane nii comme on dit il faut jamais dire jamais mais li mu jot wane nii ça étonnerait vraiment beaucoup de monde le fait que mu am vraiment benn volte-face subitement on sait jamais nag hmm. parce que aussi la prison est une expérience lan nga war a doon seen taxawaay pour ñu gën a wéy di exister alors mooy li mu l'explique cest dire au fait il y a pas de solution y' a pas de. solution non cest à que su ma nee y' a pas de solution. y' a pas de solution pacifique non non y' a pas de solution pacifique mhm. parce que gis nga maa ngi lay raconter c' pas pour rien ma expliquer léegi histoire de Blondin Diop. Cheikh Anta Diop mais non Cheikh Anta Diop sax il a démissionné. parce que Cheikh Anta Diop bi ko Senghor tëjee toroxal ko yaa ngi dégg vraiment. tas parti dafa il va laisser le combat politique pour tourner aussi le combat intellectuel. donc si la commencé di bind ay livres di gëstu moom après d'ailleurs sax finalement sax li mu jot enseigné yëpp boo xoolee ci biir livres yi la ko malheureusement il a eu des militants comme euh, ñoo xamante ni ils sont venus après sa mort en 86 bien sûr biir livres boo demee boo demoon ay ay 1970 nga demoon ay Haïti baa nga dem ay États-Unis Cheikh Anta Diop était considéré comme un prophète mm-hmm. comme un prophète alors que ici au Sénégal ñun ba léegi xamuñ jusqu'à présent on ne connaît pas qui est Cheikh Anta Diop par exemple parce que Senghor voulait l'éliminer voulait l'effacer et il a réussi effectivement à faire ça ba léegi suñu livre école yeeg ak on on pas Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop ku ko tu t'es démerdé tout seul yaa ngi dégg malheureusement hein non rien de chez nous on nous apprend que et autres Jean-Jacques Rousseau Hmm? Ah, waaw <laughs> ok a mais pour répondre rapidement rek bu ma jël temps bi si sur un débat boo xamante ni hmm. malheureusement donc euh, Cheikh Anta Diop a démissionné hmm. enfin démissionné politiquement hein parce que il tout à fait logique parce que c'était quelqu'un quand c'était un savant donc mu xam le terrain politique pour tourner wu sur le terrain scientifique il a réussi son combat d'ailleurs mais des années plus tard bien entendu ak programme ji mu tegoon yëpp demoon na ba bon ça va du ma bëgguma dugg ci sujet parce que euh, ça va nous amener vers euh, dans un autre kii euh, chante Anta Diop bi mu bi ñu ko éliminé qu'est-ce qui s'est passé mm-hmm. des années plus tard mu am d'autres formes de politiciens qui sont apparus qui sont beaucoup plus les premiers radicaux mooy euh, Amath Dansokho yi ngay dégg nii. ak euh, Omar Blondin Diop. ñooñu dañu dem ba nee. mooy mooy gauche bi rek gauche bi ñoo exactement la gauche radicale ça ça n'a pas commencé avec avec mm. avec avec Ousmane Sonko. na bu yàgg te ñoo ñoo gënoon radical. Euh, Omar Blondin Diop bi ñu demee ba xam ni fii amatul débat amatul waxtaan amatul échange. parce que à côté on a on des gens plus ou moins bornés. Mm-hmm. qui sont restés vraiment figés seen position ak yooyu. mais mm-hmm. Omar Blondin Diop dañu ne léegi il le combat comme la ça la lutte libère ñoom si lañ jël seeni i matuwaay Omar Blondin job dem ale dem Algérie ñi dem Palestine dem jàngi guerre nu ñuy defee guérilla urbaine. guérilla Omar Blondin Diop bi ñuy bi ñëw sax euh, euh, euh, si si je ne me Mali.

nañ lu ñu tasee réew xam nga tey jii ngay dégg yenn discours yi bon encore une fois vous m'excusez quand on dit que la force reste à la loi que ni l'état invincible la puissance publique yooyu c'est des mots c'est des vains mots en réalité ça n'a pas de état Moustapha li ko daaneel lu yomb la bon maintenant c'est vrai qu'on va pas ici théoriser sur lu xamante ne mën na créer jamono neexul te te te professeur te jamono neexul jamono neexul jamono ji jamono